ñàkkoon seen bakkan ñu àddu jëmale ci xeexum euh, waay màngaan gi ña nga xam ne ñooy euh, bëgg a dem biti réew te duñ ko jaaral ci yoon euh, mu di Barça wala Barcelone te ñuy mbëkki atum 2021 nag xayma nañu ko lu toll si ñetti junni toftal juróom benn téeméer ak fukk ak juróom ci ay jot nañu tëmb ci ñooñee teg nañu loxo lu toll si ñaari junni ak ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ci doom doomu aadama bilan ba nag nii la tëddee junni teg ak juróomi téeméer ñu nga xam ne doon nañ jéem a dem tee nañu leen fii juróom-ñetti fukk ak ñett ci ña nga xam ne ñooy organiser voyage yooyee jàpp nañu nañu leen ba defeere leen fii ci réewum Sénégal nag ngir xeex lu nu mel dañu taxawal ab comité interministériel euh, ngir xeex euh, màngaan gu awul ci yoon gi tey ji ci suba euh, lañu ko jëmmal ndorteelu activité boobu lépp kuréel mu nekkoon ci teewaay yu ko jëwriñ bi denk biir réew mi di Antoine Félix Diome ñu ànd Seex Yunusa Baldé comité interministériel ñeel xeex mbëkk mi bokk na ci liggéeyam fexe ba jëmmal stratégie nationale soxol xeex bu yi di xeex immigration clandestine. les migrations mi communauté internationale yépp la concerné ngir ñaari mbir benn bi ci lu soxol protection migrants yi ci beneen fànn gi faw lëkkaloo am ci diggante réew yoo xam ne fala la migrants yi di jaar waaye it ci réew yoo xam ne fa la migrants yi di dem mbëkk mi dafa concerné yow yooyu yëpp. par ci atum deux mille vingt et force de défense ak sécurité yi jot nañu contrôler lu ëpp ñetti junni ak juróomi téeméer ci embarcation lu ëpp ñaari junni ak ñetti téeméeri nit ñi jot leen interpellé junni ak juróomi téeméeri tentative soxol ay départ ñu enrayé leen l'approche de la lutte xeex bu ñuy xeex mbëkk mi warul yem ci approche sécurité rek faw ñu gan koo yaatal faw stratégie yi nekk stratégie yu yaatu lool looloo tax dañ ko war yaatal ci réew mi yépp qui consistera en une territorialisation de la lutte comité interministériel ñeel xeex mbëkk mi nag ñaari fukk ak benn entité ñoo ko composé fukk ak ñaar yi nekk ay ministère ñu doxantu ba sa mbuur foofee fukki tonu ceeb ak ñetti la ñu teg loxo waaye it benn ton ndax juróom-ñetti fukk juróom euh, bu ñu koy xamee noonee la toll ci rek ak jur wala sax euh, la nga xam ne dañu koy jox jur gi ñu koy dundee moo xam ngooñ la wala rapace wala lu ni mel te loolee nag nañu ko rek amee wala nañu ko wala sax jagut mu di impropre la consommation dañu ko teg loxo service bu commerce bu mbuur moo ko teg loxo waaye te juróom benn junni tegal téeméer ak fanweer ak ñett ci ay butéelu alcool euh, ay supermarché arrestation ak ay baar yu nga xam ne ni amuñu licence ngir jaay lu ni mel bilan boobee moom mujjantaloo ci opération bi nga xam ne service bu commerce bu Mbour daf ko doon amal ca gox ba leerale Xalin Badara Sonko mu doon fukki tonne ak ñett ceeb bu bon ak benn ton aliment de bétail bi nga xamante ne jamono jii moom lañ teg loxo diggante Mbour ak Saly li ni mel ñi ko amal mooy waa service contrôle économique muy sukkandikoo ci seen njiit muy ñëwaat ci biile opération. ba ñu tàmbalee dugg ci marché bi nag euh, li ñu gis euh, moom mooy produit périmé yi nga xam ne impropre a la consommation. humaine. ñoom nag ba tey ci bile opération daal nañ ciy teg ay butéel sàngara yu bëri bëri lu ci toll ci 6133 bouteilles yooyu yëpp ñu jàppee ko ci ay baar restaurant ak supermarché ñoom nag li ñu leen di toppee mooy amuñu benn licence ngir jaay yile produit ci fukki boutique de station ak juróom yi nga xam ne contrôlé nañ ko benn boutique de station moo ci am licence ñoom ñëpp daanaka dañuy jaay boisson alcoolisé maanaam sangara. naka noonu chef de service bi nag di artu di wax ne bii la situation dafay gën di favoriser li nga xamante ne mooy insécurité. sangara dafay am lu muy def ci nit. mu am yu muy indi jéey yu muy indi yenn saa yi moo tax képp ku koy jaay boo amul këyit. moom dañ lay arrêté ci saa si. gannaaw bii opération bi nga xamante ne moom lañu amal diggante Mbour ak Saly waa service contrôle économique fan yi daañu amal yeneen opération ci yeneen communes yi nga xamante ne ñoo nekk ci département bu Mbour. ñu àddu jëmale ak kuréelu syndicat démocratique des travailleurs de la santé ak service social ba foofee euh, sa diwaanu euh, Touba ñeneen soomeel kon dañuy banque seen ak yoxo ndax liggéeykat yee nuy jànkonteel euh, jéggi na dayoo te kenn taxaw leen syndicat boobee nag nee nañu kon nag personnel sanitaire ba faw ñu gën leen a gestu te nguur gi ci boppam faw mu gën leen a bàyyi xel te nag muy bàyyi xel bu baax nañuy organiser li nga xam ne moom mooy concours d'entrée ENDS syndicat démocratique des de la santé et sociale ñu euh, sa Mbàkke foofee yëkkati nañ seen kàddu ngir dànkaafu Abdoulaye Diagne euh, la ci kan a waxtaan ak secrétaire général bi ñu teewlu bi le reportage ko moytu la paj mi dina gàllankooru loolu di ko xamle syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social la juróomi syndicat ñu ngi ci dinañ fi def loo xam ne kenn musu koo gis ci grève ak lépp pesum kanam borom moo koy fajal boppam mu méngale barabu fajukaay bu amul pajkat ne ndab lu deful dara. tabax yooyu pour fësal la après ñu taxaw président ñëw ne inauguré nit ñi tàccu dañay faj amulu mais am na ci ñoo xam ne tey ji fonction a kawe ci yi teg juróom ñi nga xam ne ay fonctionnaire la am na ñoo xam ne def nañ ci vingt ans trente ans ñu leen di ay salaire yu dérisoire am na fonction publique locale nanu fexe ba ñoo ñu dugal leen ci utal leen statut jamono yooyu lay tàggatu ci paj meeg paju gi ñu dakkal ko ci mim réew. ENDSS nga xam ne ay 800 étudiants ñoo fa doon amul benn section boo xam ne ubbi na concours depuis ñeenti at ba pare yow nga ne yow danga nga bëgg def ay résultats. SDTS di waajal ay ñoñam ngir ñu mën a taxaw jàkkaarloog kilifa yi nga xam ne joxuñu leen benn yoon na seen gëdd. ñu wutali sa mbuur foofee kuréelug syndicat bi ëmb kon nag waa kër docteur te ñu nekk ci syndicat unique des travailleurs de la santé action sociale toogaanu ñaxtu la ñu doon amal la ko waral moo di rek sa peggub euh, poste euh, district ba ci boppam maanaam bërëbu fajukaay ba jaaykat yi yaa ndax waay taaba taaba yi nanu fa